sëñ Fallu mën nga sa kaanal mën nga sa ginnaaw sëñ Fallu yaare yi mbir billaahi yaa màgg yaa mën góor ñi yàlla mën nga sa kaanal baaya mën nga sa ginnaaw sëñ Fallu yaare yi mbir billaahi yaa màgg yaa màgg leen sëñ la mën nga sa kanam mën nga sa ginnaaw suñ yaare yi bi mooy bàyyu baara an góor ñi yàlla kanam baayu meer sa ginnaaw alaaji baara moo man ku sopp loo man nga sa man nga sa ginnaaw yaare yi mbir mooy baayu alaaji baara man góor ñi yàlla waaw waaw magal leen suñ falilo alaaji baara moo mën góor ñi yàlla waaw waaw suñ falilu wàllu ndayam di wàllu yaayi maama ndayam di baayam baayam may ni jaangayam ndayam di baayam baayam mooy di jaayam ku sopp sëriñ Falilu wàllu ndayam di wàllu yaa imaam ndayam di baayam baayam mooy di suma sëriñ a sax la xojja kaw ndayam di baayam baayam magal leen sëriñ Fallu la wax xalifa day jubboog borom mi doole sariixatu ko xaqiiqatu lay boole xalifa day jubboog borom mi mi doole sariatu xaqiqatu ñu magal sëriñ Fallu la fa xamoon doroma xalifa ndey ja day bawoo mbusoo be ngir ay sirif lañ fa xamoon wa xalifa ndey ja day bawoo mbusoo be lañ fa xamoon dara be alifa nay da jay bawo so fu sëriñ fa jagaw ngir ay sëriñ fa xamoon dara magal leen sëriñ Fallu la wa jant ba fenk na lëndëm gàddaay la nañu soqi leen mbër feeñ فانتنا لنم قداينا قداينا بيتي يسخنا نسقيلا كسف سيرين فلنا وسيف سيوقي يا دي سيخ سيخ يا بدر البدور يا دي وير وير يا دي سيخ سيخ يا بدر البدور يا دي وير fàllil biddew ya suxu nañu soqi leen mbar feeñ na biddew ya suxu nañu soqi leen mbar feeñ na bayo alaaji baara biddew ya suxu nañu soqi leen mbar feeñ na magal leen sëriñ fàllil biddew ya suxu nañu soqi leen mbar feeñ na ya soxnal sa fi leen barfee ayo alaaji baara dayam di baayam baayam may di jaanga yam dayam di baayam baayam may di jaanga ku sopp Sëriñ Fallu la wax dayam di baayam baayam may